TFM ak Majalis ñoo leen fas yéene présenté ay série documentaire yu am solo ci dunduk sëriñ Touba ak i njàngaleem ak liggéey bu màgg bi def ci lislaam muy série bu tudd jaar-jaari sëriñ Touba di ngeen ci mën a xamee histoire Serigne Touba fondement ak doctrine yoonu murit ak yeneen fànn yu bari yu ci aju ngeen mën ko seetaan guddi ajuma gu nekk à partir de vingt et ci seen Futurs Médias guddi ajjuma gu nekk à partir de vingt et une heures ci seen télévision Futurs Médias